jaajëfal ñi nga xam ne tey ñoo waral bis bi muy bàjjenu gox yi nga xam ni mooy association départementale des bàjjenu gox de Rufisque ñu organiser tey benn journée sargal docteur Thiam di wax ne comme yàlla mi ngi dogal ne jóge naa fi war a dem ci Kaffrine man ak ñoom ñu dekkoon ci nekk yoo xam ne nekkin bu rafet la woon ñu ni yool lañu ñu bëgg delloo ma njukkal loolu nag dama yaakaar ne dafa nekk loo xam ni lu rëy la lu rëy la ci man waaye aussi lu rëy la ci sama njaboot lu rëy la aussi ci samay wayjur mu nekk bés boo xam ne bii tëngee ci ñëpp fi daje. Euh, tey daanaka damay jàpp ni jafe-jafe amul ndax jafe-jafe euh, yàlla bu mu koy defar lenn rek a taxoon mu defar ko ndax bànneex tax ndax bu fekkontee ni méthode amul kenn du ko bànneex dafa fekk ni yàlla dafa bind lépp ci dualité lu mu bind rek ñaar la ciy bind. tey bu naqar amul woon bànneex du am xëy na looloo tax tey ñuy wax naqar waaye tëngéej boo xoolee man dama daal di jël sama philosophie rek lépp loo xam ne naqar la rek dama koy soppaliku bànneex si tey ñu nekk kenn ku ne xam na ko fii nga xam ne moom lu lañ fi indi bu ñu jógee Youssou Mbargane muy hôpitalu géej bi gis ngeen daanaka ba ñu àndee di doog ñëw nu mu meloon waaye bu ñu ñëwee dañ ñëw fekk ko mu nekk obstacle mais obstacle boobu ci lu ñu jàngal mooy da di transformer as obstacle def ay opportunité loolu la ñu def nekk ci di xëy di gont di liggéey ngeen di ñu jàppale ba tey yàlla indi ko fii nga xam ne la yegg ñuy ñaan yàlla nag ñu ngi dem si jàmm ñu ngi ñaan ki nga xam ne moo fi ñëw lii lépp loo xam ni def nañ fi benn ñu ngi koy ñaanal yàlla mu def fi téeméer ndax lii nii nekk na loo xam ne suñu xol la sax bu doon suñu sagoo du dee mukk te loolu aussi nekk lu am solo beneen bi si des mooy que ni bu ñëwee aussi na téye ñi fi nekk ndax ñi fi ne district bi fi mu yegg nii tey ay nit ñu baax kese ñoo fi nekk man daanaka madame Camara wax na ko léegi ci liggéeyam daanaka ñoom ci boppam xam nañu lu may wax daaw def dara bala nga bala ngay def dara ñoom ñu jël ko def ko ay nit boo àndeek ñoom da leen di jël rek jox leen seen cër boo leen joxee seen cër rek ñu def lu ñu mën a fii mu ne nii ñun ak ñoom ànd waaye amuñu heure guddi bëccëg dama leen daan dàq dama mi ngi nii sama ginnaaw dégg na bu baax li mu wax xam na duma ko fen dama daan ñëw di couper courant bi pour ñu mën a ñibbi dañ daan nekk ci district bi district ba minuit une des fois dama daan ñëw dem ba ca xam moom mooy compteur bi ma couper bi pour ñu génn ñibbi donc loolu aussi dafa nekk lu am solo la kon am na ay

nga teg ci kaw étage loolu dafay daal di yomb.